Euh, bala Gaye euh, ak Tapha ak euh, mm-hmm. combat royal bi di mm-hmm. Siteu ak Modou Lo dañu commencé ci Balla ak tafa mm-hmm. n'est-ce pas alors sëñ Bour déjà yow yaa fi tuddee woon man damay commencé ci Balla Gaye yow yaa tuddee woon Balla Gaye le petit noo koy waxee non Fawzeyni mais léegi màgg na waaw léegi màgg na léegi <laughs> lion way léegi mu toog diir kenn gisu ko mm. donc bi nga ko gisaatee ci face à face t'as vu un bébé lion wala un Simba toujours non un lion Ah gv Oui, j'ai un, roi lion, vraiment. Balla Gaye 2 a surpris tout le monde. xam nga bu ñu defee rétrospective. Mhm. moom Tapha Tine ñu ngi mujjee jàkkaarloo. ca fële nga xamante ne que moo nekkoon. Mhm. arène nationale. Mhm. ca la Tapha Tine du yuuxu yuuxu bu rëy ba naan ko dama lay joob <laughs> l'image à faire le tour du monde. ñeneen ñi sax xëy nañu euh, caricaturé ko. def benn tafatin bu toll nii benn Balla bu toll nii ak AJPK ak Malick Thiandoum Balla ne ok mais bi ñu jàkkaarloo waatee bërki dem ñëpp am surprise bu extraordinaire dañu gis benn Balla Gaye 2 bu liggéey bu liggéey waaw benn Balla Gaye bu am benn fraîcheur physique bu oh, extraordinaire j'ai l'impression que dafa rajeunir. waaw dafa parce que bala Gaye 2 bu njëkk mm-hmm. biir bi la ñu daan gis fii xam nga. Mm-hmm. personne n'avait compris le physique de bala Gaye 2. Mm-hmm. surtout bi muy dajee ak Boy Niang. man bokkoon naa ci ñu alerté woon ne le physique de Balla Gaye 2 sincèrement parlé. man doyuma ñeneen ñi dañuy jàpp ni ko souvent da ngay critiquer da ngay nangam nangam mais keroog bi mu dajee Boy Niang l'histoire m'a encore donné raison. maintenant ñëw nañu euh, tasewaat barkaati démb waxante ko. mu nekk signature boo xam ne dañu gis benn Balla Gaye bu show. maanaam bu ñu gisoon bu ñu amoon auparavant. Oh, waaw benn Balla Gaye 2 le lion de ba ñu daan gis lañu ñu gisaat. d'accord Doudou était là. Mhm. kenn comprendrewul Balla Gaye par rapport ak Tapha mu jëloon le dessus ci mhm. fees fees bële bii dañu gis ne que Balla Gaye 2 moo jël le dessus bu Tapha waxee mu ne ko da ñàkk jom waaw bu Tapha Tine waxee mu ne ko yow dangay nga yabaatee di ko waaj waaw di ko waaj ñu gis benn mhm. Tapha Tine bu calme benn Tapha bu serein bon bi ñu xëyee nag man ak Doudou def nañ ci émission daa wax ji mhm. ça a suscité <laughs> bawal bawal yi sax eh, gis naa ko ci mel ni eh, Badajon mm-hmm. génn attaqué buur ah tiire buur dafa am fu mu far wax nañ ko ah moom j'ai ko théâtre la woon sax ah buur ah, <laughs> dañ ko jox xaalis mi wax mais bon du ma mm-hmm. tontu Badajon suma mm-hmm. suma grand la eh, nit la ko am ne wa vraiment waxuma sax waa bool mais képp kuy acteuru làmb dafa am respect bu dox sa diggante ak moom te loolu aussi moom moo ko moom moo ko lebal nañu ku ci mel ni moom ku ci mel ni ciy seen donc euh, duma ci tontu tey sit yu bari war nañ ma buur voilà doo tontu ba dajoon man leen non non mënuma man bu ma demee ba man fi ma toog wax luy neex nit rek moo ma fay bàyyi dëgg la ce n'est mooy damay jël sama courage à deux mains su ma gisee loo xam ni d'accorduma ci damay taxaw ne d'accorduma ci j'aime pas la psychologie de tafaatin am naa ci droit te suñu ma ko laajee dinaa ko mën a démontrer scientifiquement ñoom ñi nga xamante ne que ñooy les supporters de tafaatin Tine ñu ci bari ci ñoom remarque bi ma def gis nañ ko mooy l'attitude de Tapha neexu leen donc badama affirmer que effectivement ñun ñoo ko ko digal ñun son staff ñoo ko ni bul am na yenn mbër yoo xam ne dañ leen doon wax ni que da ngeen a yaru mais dem ba mu yàgg sax seen ci ko feeñ ndax mbër donc na ko bàyyi mu défulé wu mais moom Tapha Tine toujours na mel rek ni mu war a mel garder calme am garder serein garder nangam nangam nangam am nañ ci droit mais loolu nag bokkul ak avis bi tey technicien bi wax ci làmb ñun du duñu ay bërekat parce que souvent ñoom ñi farak mbër yi bu ñuy tontu loolu la ñuy wax mooy mosoo takk ngemb wala yaroo yaramu mbër ñaati entraîneur de foot dooru ñoo mosul football donc loolu du raison tey boo demee France 2 wala tey chaîne football yi ni mu tudd ay bini sport ña fa nekk comme ay technicien di wax ci football ñu ci bari sax du ñooy joueur de foot. dëgg la donc pourquoi bëgg li nga bëgg dégg rek yow ngay dégg mooy dañu naan sa mbër moo fi mën. yaa ngande. boo ko jàppee da koy rey nga ne oh waa ji xam na làmb félicitation. mais bu nit ki waxee lu xaw a uuti tuuti ak sa mbër nga ne xamul dara. Mm. wala nga ne dañ ko fay. Mm. wala nga ne dañ ko ger. wala nga ne Aziz Ndiaye la àndal wala nga ne Baye Ndiaye la àndal wala nga ne Balla Gaye xaritam la te genre image boobu ak genre langage boobu làmb kese moo ko dese ci sport làmb kese mooy làmb mooy sport boo xam ne kenn mënu ci wax dem na ba ndaanaan yi daan wax ci làmb yëpp ñu ci bari sax il préfère léegi se taire parce que dafa mel ni waa làmb jikko jooju ñu leen abal ñoom moom la ñu bëgg a doxee mooy làmb du yëfu nit te alors que yëfu nit la ndax ay xar bëriwuñu dëgg la ay nag bëriwuñu ay mbaam xuux bëriwuñu ay nit ñooy bëri kon ko bu nit kii di wax pensée nañu respecter pensée nit kii soo ci d'accord sañ nga koo démentir walla nga wax ci sa xalaat mais bu mu jëm ci xaste xaste baaxul bu mu jëm ci ay saaga bu mu jëm ci ay menaces boo duggee fii boo ñëwee fii bilaay boo fi ñëwee di nga xam dinañ la def lii dinañ la pourquoi làmb war a toll foofu kiy wax li muy wax daf lay neex nga gëm ko wala nga bañ ko gëm. wala bu ko seetaan. mais il ne faut pas aller aller trop loin. c'est te ñiy seetaan les buur les fadam les coach Bakri des fois il ay très loin. mooy mm. dafa mel ni yow mi taxaw di wax ci làmb. amoo famille mm-hmm. amoo jabar amoo doom amoo ay bokk mm-hmm. il se permet de t'insulter ci ni mu leen neexee il te permet de de te menacer loolu dafay dem sax ba ci mbër mi des fois communication boobu lay am ci envers kiy wax ci làmb da lay non ñuy wax ci làmb ji xam nañ leen kenn du dugg fi ñu dëkk ah, kenn du dugg Pikina ah, doo dugg Diamaguène ah, doo ñëw Parcelles ah mais mais mais pourquoi il se permet de de dire certaines sottises pour attirer la violence de leurs supporters face aux chroniqueurs. dëgg te loolu du dëgg du yoon ñoom ay acteurs lañ ci làmb ay mbër lañ mhm. yaa y a les promoteurs y a les amateurs y a les donc dañuy wax suñu xalaat. ça ne veut pas nag li ñu xalaat mooy nekk de déedéet ndax ay nit lañu li ñuy xalaat mën na nekk comme mën na bañ a nekk mais boo ci d'accordul davi gëmal li nga gëm mais saaga xaste menacé waate wax ju bon wax ju ñaaw te alors que la cybercriminalité euh, la cybercriminalité est là nit ki mën na la saaga lii nga ci commentaire nga capturer ko boo demee cybercriminalité ça ne suffit que deux minutes ñu ne la diw la woo ko téléphone Mhm. tey buñ ko woowee tey mu ñëw taxaw fan lay mujjee yow baal ma léeg-léeg nit menacé la nga xëy yóbbu ko cybercriminalité fan lay mujjee yow baal ma donc il arrête ces sottises là ñun dañu nekk ci làmb jàpp ne dañu neexal làmb ji du affaire ethnie j'entends des jeunes bool bool man digg ndengaleer laa dëkk man samay maam ay paaru ndengaleer lañu digg bool laa dëkk mais il ne dañu bañ bool bool yi bëgguñu bool bool yi ñun ay bool bool lañu déedéet làmb du affaire ethnie làmb benn sport la boo xam ne ñun ñëpp ko bokk ci waaso boo mën a bokk ci xeet boo mën a bokk le plus important c'est d'être sénégalais Tapha ak Balla Gaye dañuy daje genn ngoon ku ci nekk ci ñoom million yañ la fay yow yaa koy dundee yow ak say njaboot doo ci jox buur doo jox faram doo jox baakari doo jox keneen ak keneen yow yaa koy dundee yow ak sa njaboot buñ ca jeexee le 21 bu 20 heures jotee Balla Gaye ak Tapha Tine tàqali ko bu subaa bu ñu dajee ku nekk joxante loxo man j'ai de très bons rapports avec Tapha Tine sincèrement depuis 2012 il ne m'a jamais manqué de respect billahi wallahi tallahi Tapha fait partie de les lutteurs les plus disciplinés de de l'arène billahi wallahi tallahi il ne m'a jamais manqué de respect ci li ma xam mm-hmm. su ma ko fekkoon mu yor dër léegi ma laaj ko daf ma koy jox waaw ah kon kooku seq nañu teraanga. dëgg la Balla Gaye 2 lu ma ko yàqul ci àddina amul. loo xalaat liiru jaan dem na ba su boo ko teg man plateau day daanu crise liiru parce que li ma wax Balla Gaye 2 du ko neex te pourtant à l'époque loolu laa gis. keroog bi ñu bëri ak Eumeu Sène bi mu ne dañu am troisième confrontation contre Eumeu Sène dama leen ni Balla Gaye 2 ma gis bés bu dajeeg Eumeu Sène Eumeu Sène daf koy humilier pourtant ça l'a permis da mu dem xoolaat loolu combat boobu da ko sëgg bëriwu ko bi ma ko fi di ko tuddee Fawzeyni les petits lions de Abdoulaye Diakhaté la wax boobu daf ko marqué ba mu gëm ni lu tax mu di ma saboté kon cela veut dire que liggéeyuma mhm. dafa dem liggéeyi taxul noonu la taxul mu génn wax ma lu ma warul wax wala mu nangam ak nangam xam ne ni que man mhm. je suis son frère mhm. ñun mbër yi ñun ak ñoom ñoo bokkul làmb ji ay frère lañu ay doomu ndey lañu mais am na dal attitude yoo xam ne vraiment neexalul làmb day augmenter l'adrénaline de la violence ci mm-hmm. làmb mm-hmm. tey boo waxee buur wax ko xëptal say supporters ci moom suba ñu dajeeg buur def ko luñ ko warul def qui sera responsable walla suba nga xaptal sa benn supporter mu daje ak buur buur jël gardam def ko lu metti def ko lu mu warul def kii sera responsable